ci heure bu gàtt bi mu ñu jox ak bu gàtt bi mu ñu dèjà xam ne ñaar daf ñu ko changer parce que déposé nañ suñu autorisation depuis mardi yaakaar naa ne bii ci guddi la ñu woo téléphone nañu téléphone nangul nañu mais dèjà daf ñoo soppil fa ñu bëggoon a aw deuxièmement ñu waar ñu ci bëccëg préfet ne dèjà 18 heures daal fu mu jeexee dañ koy arrêté moo tax yëf yi demee nii ba tax na ñu doon xaar ñëpp egsi wuñu kon kooku ñu ngi ciy remercier préfet bu baax a baax ba ca mooy ñun suñu wàllu bopp di askan wi dañu bëgg xam wax ne ñoom li ñu xam ak li ñu moom ak li ak li ñu moom mu ñun ay ay Sénégal nekk ay citoyen nekk nag ay nit ñoo xam ne waxtu ci nekk rek suñu duwaan dañu koy wax ak di kaas mooy Sénélec dafa liggéeyul ba noppi bëgg koom te nit bëgg bëggee koom dafay liggéey moo tax mu jël li gën jàpp ne moo gën a metti gën a jafe mu teg ko ci ko askan wi muy facture courant yi nga xam ne dañ koo yokk mu seet lool ba yegg ca lool ñu ne loolu dañ ko dàkku tey dàkkawuñ ci ëllëg ñu wax ne loolu dañ koo bañ dañoo lànk loolu ba tax na ñuy wax fàttali président ne ko ñun day ñoo ànd ak yow ba faloon la toppaloon ci say bëgg-bëgg yàlla def te yi nga fay lii askanu Sénégal muy ku ne xam ne ne dund bi seen saa boo xëyee dafay gën di yokk courant bi ñëw waxi nopp te courant ku ne xam na ne dafa seeroon ndaka jekk ñu ñëwaat na gën ko yokkaat mu gën a seer ñu wax ne dañoo wax ne dañoo daggoo ci yokk bi dañoo lànk bayut ko ñu lànkale ah kay yeneen dina ñëw ndaxte liñ ci bëggoon amuñu ko ci ba tax na ñuy def lii ñuy def tey jii ndaxte bu ñu joxoon temps bu temps doy kon jàpp naa ne liñ ci bëggoon dinañ ko am waaye ñun duñu bàyyi en tant que Senelec yóbbuwaatul fa mu fa facture nekkoon wàññiwaatul courant bi duñ duñu baax parce que ñun askan wi moo ñu yitteel askan wi moo ñu moo ñu tax a jóg kon ñoo bëgg wàññiwaat courant bi wàññiwaat ceeb bi wàññi diwlin wàññi gaz Sénégal yëpp nekk si jàmm parce que senegal Sénégal métti na ku ko wax métti na ku ko waxul métti na waaw man damaa bokk ci parti bi waaye nag du ma topp ci nit ci kaw koo xam ne day not not aw askanam parce que man damaa topp ci nit koo xam ne damay dund aw ñàkkam moom sama ñàkk mu lay dunde ba tax na lépp loo xam ne ñi ko teg ci ko askan wi te nekkul loo xam ne si lu war am la man du ma ca du ma sa d'accord moo tax may wéy may continuer di xeex li may xeex di ci woon nag askan wi yëpp te xam ne xeex bi seen xeexu bopp la yëf yi seen jëfu bopp la Sénégal dañoo yow ñu war a bàyyi li neen te ñu koy nangu parce que kanam ba moo ko fajee waaye lu ñu jël teg la ko nga nangu ko ba liggéey yeneen dina ñëw yeneen dina ñëw kon nañuy bañ lenn man dara naqaruma lu mooy liñ teg askan wi te te du dëgg du yoon loolu moo ma naqari mais à part loolu amul leneen lu ma a ne bu def ci ci appel parce que la ma war am lépp maa ngi ko fi am yaakaar naa ni la ma bëgg yëpp maa ngi koy am waaye nag la ma gënal mooy askan wi joxaat leen li ñu moom li ñu moom mooy na dund gi na wàññi dund gi ba mu yomb Sénégal yëpp gis seen bopp ñu wàññi courant bi ba mu yomb Sénégal yëpp gis seen bopp mais état am na fii fu ma jëlee xaalis fu ma ci kaw ci askan wi.